ñaawlu wala di naqarlu seetaan gi ñu seetaan Touré Monde te pourtant amul benn échéance électorale bu fi mës jaar boo xam ne Touré Monde defu ci lim ci war a def amul benn échéance bu fi mës jaar boo xam ne Touré Monde nekkul ca kanam bu jiituwul tamit kenn du ko jiitu waaye ñu seetlu boobu ba léegi amul nomination yi ñuy dégg temps yi yépp depuis élection présidentielle ba léegi gisuñu Touré Monde am ci benn poste de responsabilité gis ñu tamit benn jeune boo xam ne di tey jël nañ leen pour ñu mën a liggéey te pourtant jeunes ñi ngi nii après bu ñu bàyyee ba pare ñii jàng nañ mais après ñu toog rek amuñu lu ñu jàpp. loolu ñu ci interpellé notre ministre Dame Diop moom moo ñu ci mën jàppale mu jàppale jeune wu Touré Mbond yi ñu insérer leen ñu am liggéey et puis poste de responsabilité yi Mbond gis ci boppam parce que bu dee ay cadre am nañ ko bu dee ñu am xam-xam am nañ ko bu dee ñu lu nekk am nañ ko. lépp fees na del Touré Mbond mais jusqu'à présent ñun gisuñu suñu bopp en tout cas dama foog ne Touré Mbond noppi gi ñu noppi moo tax ñu ñuy fàtte loolu nag lañ bëgg mu jeex moo tax tey ñuy yëglu yéen ñëpp ñëpp yëgandoo ko président de la république xam ne Touré Mbond dafa yàgg liggéey dépp depuis élection 2012 ba léegi mosuñoo perdre benn élection mosuñu ko fee perdre bu mu mën di doon dañ koy gagné kon nag bu fekkee ne dañuy laate rek kenn waruñu cee jiitu ñu ngi koy tàllal suñu loxo te xam ne ñun moom lañ xam moom la ñuy jàppale à chaque fois fii ba élection bu ñu mën di doon Touré Mbonde ci ginnaawam lay nekk moom tamit nañu bàyyi xel di ko interpeller daam Diop ak ñëpp ministre yi nga xam ne mën nañu jàpp ñëpp ñu ngi leen ciy interpeller di wax rek ci tamit tali bi suñu tali bi nga xam ne ni président de la république sax élection présidentielle yi moom jaaral na fi boppam ba gis état tali bi nu mu mel ñu tàmbali woon que depuis deux ans ba léegi mënut a pexe ba pare loolu tamit wax dëgg yàlla bëgg nañ mu jàpp ci trop parce que poussière bi bëri na te vraiment nit ñi wératuñu daal mu jàpp ci ba tali bi mën a pare ak suñu stade bi nga xam ne nii tamit chaque année ñu ne ñu chaque année ci ngeen football amatuñu sax terrain boo xam ne ci lañ mën a footballer te stade baa ngi fi defar nañ ko ba nga xam ne presque li ci des bëriwul mais jusqu'à présent chantier bi arrêté na depuis plus de cinq mois chantier bi dafa arrêté xamuñu lan mooy cause yi loolu tamit bëgg nañ président de la république jàppale ci jigéen ñi ak ndaw yi wax dëgg yàlla ba Touré Mbonde mën a gis boppam bu baax a baax parce que mi ngi def effort saa bu ñu soxlaa Touré Mbonde Touré Mbonde day moom tamit nañu na fay naat bi xoromam loolu kese lañ soxla